jërëjëf xanaa di sant yàlla di jëlee ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal xalifa général mi yàgg fi te wér di ñaanal sama sëriñ sëriñ Sidi Abdoul Ahad mi yàgg fi te di sant yàlla bu baax ndax li nga wax euh, dañu ko doon dañoo yàgg bëgg euh, centre yu ubbiku ndax bul fàtte ne centre centre état civil mi ngi nekkoon sous préfecture 2008 la ñu ko affecté communes ñun ñu ngi ci jot 2013 ci commune Touba 2013 à nos jours bi ñu ko jotee amuñ benn kayit bu fa dugg bu am jafe-jafe 2013 ba léegi benn kayit du amatu fa jafe-jafe mais bi ñu ku donnu nag da ngay donnu lu nekk li nga xam ne dañu ko donn maanaam hérité ko jot ko am na ci lu baax am na ci lu yàqu am na ci leneen moo tax bi ñu koy jëlee euh, sous-préfecture dama woo président tribunal bi woo huissier yi ñu constaté ko xam ne li ëpp ci document yi ñu jot dafa défectueux dafa yàqu ba tax na nag biñ ñëwee président tribunal biir foofu laa ko sant cant goo xam ne am na tàmbali waaye amuloo bu yemukaay ndax nit koo xam ne dañoo ëmb jox la nee la yëfi ñëpp a ngi ci nga xool li ëpp ci nit ñi seen yëf néewu ci te nit ñi buñ koy laaj yow lañ koy laaj mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw di seet seen i kayit ci commune bu ñëwee ñu ne leen liste bi néew fi wala registre bi yàqu na wala tawte na ca sous préfecture ba disparaître bu yàgg ba réer loolu nag bi mu amee ñu diisoo ci ànd ci mu ànd ak ñun ci liggéey bi képp ku ñëw ci bi ñu ko yoree ak léegi boo ñëwee à la ngay jot sa këyit bu fekkee ne la ko jiitu boo ñëwee dañu koy seet buñ ko seetee gis ko ci baax na buñ ko seetee gisuñu ko dañuy lay dem ci moom mu jàpp laa defaraat këyit bi indi ko ñun ñu def ci liñ ci war a def jox boroom mu def ko diirab cinq ans yi mu fi nekk liggéey na ci liggéey boo xam ne su fekkoon ne du moom moo fi nekk yaakaar naa ne danañu am jafe-jafe waaye comme yàlla dogal na am na volonté bi collaboration bi baax na te nangu na ko guddi ak bëccëg suba ngoon huit fekk na ñëw ci commune bi man ak moom lu bare bare amu ci heure amu ci waxtu amu ci bis disponible ci heure bu nekk ngir ñu mën a dimbale askan wi ñu mën a ak ndax bu lu loon loolu Touba moo waroon ëpp problème ci Afrique ci document dëkk boo xam ne fukk fukki centre ak juróom-ñaar doyu fa mu nekk benn centre te mu te ñi te ñi ñu naan mi ngi dox mi ngi yeex loolu defe naa ne ak njàmbaar lii ñu ci def moo tax looloo tax nag bi mu amee depuis ñeenteel ñi ngi toppatoo lii centre secondaire yi juróomi centre yi ànd ko waa direction état civil mais contexte yi di sensé situation réew mi di sensé waaye ñu ànd ko ak direction ànd ko ak DAF ba tey jii ba ñu jot code yi juróomi centre ndax ñu ngi nekkoon Touba mi ngi nekkoon 232 moo nekkoon numéro centre su préfective ko centre bi ko commune bi yoree ñu jox ko 238 tey dooleete nañ ci ñaar juróom muy juróom-ñaari euh, code lañ yor code bu nekk dafa am centre fi mu ne nii nii déclaration xale bii ñu def tey bu ñu ko tàppee mi ngi dem na signalé ne ca direction ba jam ñaajo jam ñaajo dana ko gis daf bu ko soxlaa dana ko gis tey ki nekk Italie bu fekkoon ne dafa demandé fii ci dugg ci plateforme bi xool centre secondaire daa daaru Xuddoos mën na def damaanam fam toog ca bitim réew wala ci machine am fu mën a ne laase ko fii ñu remplir ko officier bi signé ko mu euh, mu tiire ko foofu ci jot ko fam toog te du buuse loolu nag moom lañ bëggoon dañoo bëggoon centre buy ubbi mu ubbi ak euh, jam ci xara ni jamono bi to fi jamono toll ba duñu ko def ba pare jàlli bu ko de reprendre at maanaam naan bu lii ñëwee ñu def léew nag dañ ko informatiser maanaam connecté ko monter antenne yi ba nga xam ne connecté na ak direction état civil connecté na ak DAF mais connecté na ak commune Touba di centre yëpp noonu lañ ko def nga xam ne jafe-jafe dootu am nit kiit ku ñëw rek day déclaré boo déclaré ñu jox la sa ak nga dem booy ñëw nag li gën a yomb nga ñëw fii déclaré wala nga dem ci chef de quartier bi mu defal la euh, certificat de domicile nga ñëw boo ci ñëwee ñoom danañ sukkandiku pour déclarer wala maay bi ñëw wala kenn ci parents yi ñëw déclarer donc loolu bu fekkee ne euh, certificat de accouchement moo ñëw baax na bu fekkee certificat de domicile moo ñëw loolu yëpp dafay yombal li nga xam ne moo daan sonal moodu moodu yi moodu moodu yi dem defu ko dem ñu jëkki jékki ñun ba ba tey dañ koy dund Mara Mbàkke laa ko farale ca euh, immigration euh, européen yi dañuy yónnee renseignement di laaj ne kii nga xam ne jox nañ ko mi ngi wët passeport ca Europe peut-être am na amoon na carte consulaire dem na ba am war a am passeport ñuy laaj ndax kan moo ko déclaré woon baayam moo ko déclaré woon wala kan moo ko déclaré woon loolu nag dootuñu dal donc mbir bu fekkee ne da cee nekk di ci dox di ci liggéey conséquences ya lay dal ak inconvénients da ngay fexe ba dootu dal population bi à partir de aujourd'hui yaakaar naa ne kenn dootu am kayit dootu jafe Touba am kayit dootu jafe mais kenn dootu am kayit muy am problème parce que c'est information monsieur le maire nañu xam euh, juróomi centre yooyu fan la nekk ci ban ban quartier la nekk wala ban xayma centre bu si nekk ñaata quartier wala ñaata village nga boole. waaw léegi benn centre bi mi ngi nii bii mooy Darou Khoudoss Touba mosquée am na ci village su Touba mosquée gi def nañ ko nii fii mooy bureau chef de village bu daaru Khoudoss. donc ñëpp xam nañ ko délégué de quartier yëpp chef de mooy seen patron ñoom fii la ñuy ñëw. délégués de quartier ñoo nekk ci quartier ci quartier ci les populations yi dëkk loolu lañ ko connecté pour information bi yomb ci ñoom Daaru Xudoos a ngi nii Touba mosquée am na Ndindi am na Saam sëñ Baara Xureja am na Buqatul Mubaarak am na juróomi centre juróomi centre yi nag benn bu ci nekk village yi ci aju identifié nañ ko def nañ ko yéen a ngi koy dégg ci rajo yi taf nañ ko jox ko jox nañ ko chef de village yi mu concerné kenn ku ci nekk benn bu ci nekk ak numéro ne jëyi aw kayit mu dëkk Daaru Xuddoos boo ko yóbboo Tuubaa nag boo demee dañ naan déedéet demal kii Daaru Xuddoos la loolu dañ da cee am solo la lépp nag ñu ko ànd ak waa direction état civil maanaam ak waa DAF ak euh, mi ngi mi ngi en ak euh, centre bi bi nga xam ne mooy commune bi. juróom lañ jotagoon def nañu demande lu bari dama ne dëkk bi 17 war na fi am parce que boo demee moo ëpp Dakar. département Mbacké mooy département bi ëpp population ci Sénégal te bu ñuy wax département Mbacké Touba moo tax xam nañ ne suñu population ñoo ëpp dakaar te Dakar lu mu néew lu dix neuf nga fa donc kon xam na ne bu ñu amee set des na dese nañ benn am nañ gap boo xam ne nii am nañ déficit donc centre état civil secondaire mais nii ñu def ba am lii ñu ngi continuer di ko def pour ñëpp am ko xam nga wax naa ko léegi ci sama dama ne bi ñuy dem ko li ñu doon dund conséquences yi ak problème yi ñuy dund bu yu bees yi ñu samp dañoo bëgg problème yooyu dootu ci am parce que dañoo hérité loo xam ne dafa am problème mbir nag fi nga fi li nga fekk boo bu amee ay jafe-jafe loolu ngay corriger mais li nga xam ne da nga ko ci sa kanam yaa ko defar dem boo ci noppee waratul am benn problème warutul am erreur warutul am benn jafe-jafe parce que fekk dund nga obstacle yëpp te li nga dund yëpp da nga ko war a éviter booy waaj def dara da ngaa war a éviter loolu loolu yëpp waajal nañ ko maanaam waxtaan nañ ci ñoo direction état civil ñoo ko ànd indil na ma fii trente personnes def nañ fi un mois ñu ànd di liggéey bi ba bisab tey bii ñoom sax dañoo war a ñëw ànd ko ak ñoom mais ñu ñëw ci semaine bi ñu def tournée ànd ak ñoom ñu ci liggéey bi yëpp parce que réew mi dafa nekk ci toll ci nouvelle technologie bi dana donc ak matuwaay yi ñu war a jël lépp dañ koy jël ba ëllëg ci bi du am benn corruption incha allah. li li ñu li ñu ci li ci maire bi war a dem en tant que maire mooy jox leen matériel logistique jox nañ leen nommé officier état civil yi jox nañ leen indi nañ matériel de bureau bi nga xam ne moom la ñu war a am. indi nañ leen fiche yi nga xam ne même fiche yi de euh, yi ak registre yëpp. pare nañ ko indi leen ko ñoom ñëpp kenn ku ci nekk disponible pare nga sa matériel pare na pour liggéey noonu nañ eh, officier état civil bi nag ak chef du village bi ñooy responsable yi dañuy connecté aussi gis nga antenne bi mi ngi ci kaw informatisé nañ ko fii ne benn premier déclaration boobu waa direction ñu ngi koy xool donc li nga xam ne maire war na ko def ci eh, centre yi lépp def na ko ba pare parce que danañu danañu am ñu am yëpp yi lu dul li nga xam ne dafa laaj dem archive koo xam ne ku bees kuy déclaré man na am lépp fi koo xam ne nag da nga xam nga ñun am nañ sax ay 1800 nangam 1800 nangam nag ku ko bëggoon ku ca doonoon wala nga am ko donc da ngay dem ca centre certificat de mariage certificat de décès ak déclaration de naissance yooyu yëpp day am fii yooyu yëpp day am ay officier fi nekk ay officier état civil léegi ñun amoon nañ cinq léegi ñu ngi neuf ay officier état civil commune Touba cinq yi ñoo nekk ci kii yi cinq cadres yi ñoo des ci ci centre principal maa ngi tudd Cheikh Niane man maay président tribunal d'instance de Mbacké donc di revenir ci sant bi ma wax rek tey jii visibilité bi ak information bi egg fa mu war a egg donc presse ci fan fànnam yëpp nag du ma ko lim mais yaatu na donc ñoo fi teew maa ngi leen sant bu baax euh, léegi rek am na ku posé monsieur le benn question nekkoon ko ndax li ñu am ci centre principal yi euh, bu Touba mosquée dañ ko am ci centre secondaire yi loolu dama ciy leeral lu ndaw sant secondaire yi ñu ngi door a tey donc ku am naissance booy déclaré juddu dana ko jël ku am mariage sëy dana ko jël ku am ku faatu dana ko jël certificat de résidence également bi ñuy laaj pour déposer ay certificat de nationalité sénégalaise dana ko jël léegi nag maire xaw na ko junj mais dama koy leeral ñoom dañuy door a commencé kon amaguñ benn archive maanaam kenn bindoogu fi pour ñëwaat di di wut renouvellement di yeesal kayit léegi nag mënoo yeesal benn kayit boo xam yow yoroo archive ya donc koo xam ne nii da nga amoon kayit bien avant centre bi tàmbali fa nga ko amoon fa ngay dem ñu yeesal ko parce que ñoom ñoo yor archive yi mais ñii bu demee un an deux ans commencé am seen ay archive bopp képp koo xam ne denc loolu la sa kayit effectivement boo bëggee yeesal mën nga fi ñëw ndax foog ñu vérifier avant avant ñuy def renouvellement dañuy vérifier registre bi ndax yaa fa nekk ndax yaa moom numéro bi loolu nag ki denc say këyit rek moo ko man loolu laa bëggoon a ci li maire doon junj léegi di ko leeral kon daal acte état civil yëpp yu ñu war a jël rek ndax état ñetti pàcc la juddu ak mariage bu ko yàlla tuddee ak faatu ñaari yu njëkk yi moom bu benn bi amee faaw beneen bi am ku juddu dana faatu bi ci diggante bi nag yàlla mooy xool ku mu neex mu may la soxna wala doo ko am waaye ñett yooyu moom effectivement santé dañ koy jël ak résidence bi mais lu dul loolu comme yu bees lañ da ngay dem ci centre principal ba nga amoon say këyit am na it ku laaj léegi effectivement enregistrement bi yaakaar naa presse bi jël na ko am na léegi xale bu ñu fi bind léegi déclaration bu bees kon centre Darou Khoudoss moom commencé na tey jii ci cérémonie bi mu jeexee yeneen centre également am nañ digalu def ko bi may leeralaat également mooy problème registre am na ku laaj matériel léegi loi Sénégal état civil sañoo ko bind ci cahier wala feuille dafa am ay modèle registre yoo xam dañ ko créé modèle boobu leer nañ boo xam ne foofu lañ sañ a bind affaire état civil yooyu également depuis un mois maire jënd na presque cinq cent registres yoo xam ne nii daf ma ko yónnee tribunal parce que man la yoon wax maa ko sañ a xool ba xam respecté na conditions yi ak normes yi est-ce que yii la état wax baax na baaxul bu lépp baaxee ma coté ko paraphé ko signé ko donc yi ñu doon léegi naissance bu bees bi man mii maa ko signé maa ko coté ba vérifié na baax na loolu également laa def ci centre Bokkatou Mbaraka def ko ci Ndindi def ko ci Saam def ko ci Touba Mosquée kon fii ñuy waxee centre yëpp jot nañ seen registre jot nañ seen ay imprimé naissance mariage décès ak résidence kon ku fi am événement ci ñeent yi may wax man nga dem déclarer ko loolu laa ne naa ko sof ci li monsieur le maire waxoon parce que effectivement bi may door a ñëw j'avais remarqué problème archivage am na fi denc kayit yi da nga daan fekk ci mu nekk ci ay couloir wala ay bureau yoo xam ne ni presque ci suuf lay nekk à même le sol moom laa doon wax léegi di ko remercier au passage ku am capacité d'écoute la man boog dafa may déglu ma ni ko am na benn salle bu ne ci kaw salle boobu rëy na yaatu na nañ fa defar étagère en fer nga wut ay archiviste nga recruter leen ñoo xam ne ni am nañ formation EBAT université foofu la ñuy def defee formation archiviste yi mu déglu ñu ñëpp parce que moom it li li ko sëñ bi sant rek mooy liggéey dëkk bi mu jël trois personnes yoo xam ay archivistes lañ defaleen leen contrat ñooñu actuellement ñooy saytu loolu salle boobu nga également équipé nañ ko ba am na étagère en fer yu fa nekk bi ma ko waxee def na ko depuis deux semaines commencé nañ yéegal registre dañ ko war a ranger par année ak par numéro donc ci liggéey boobu lañ toll moo tax nga fekk mu mel na lu fa dajaloo mais ñi ngi dugal par année anne bu jeex ñu jël beneen année ba keroog ñu ranger lépp mais c'est une grande salle boo xam ne ni am na étagère en fer yoo xam ne nii maire moo ko fi installé yàggagul noonu donc loolu rek rek pour wane ne ñu ngi góorgóorlu ci archivage bi te loolu li koy tontu rek mooy on a informatisé les centres secondaires war nañ la léegi machine bi nekk ci suuf loolu également direction état moo jàppale maire ba fi tey tey ji ku ñu fii serveur bi nga xam ne nii moo nekk au niveau national nekk jam ñaajo directement bu ñu lancé état acte bi ñu enregistré day dem directement jam ñaajo ñu vérifier ko kenn mënatu ko xotti kenn mënatu ko réeral même bu registre bi détérioré wu ëllëg yàqu fii à Touba boo interroger machine bi mu génne la sa kayit loolu également yaakaar naa kon ñu ngi évoluer di jóge ci wàllu papier dem ci numérique te loolu ñu ngi ciy sant sëñ Mountakha mi nga xam ne nii moom moo ko jiite woon ak maire mi teg loolu ci loxoom euh, dafa am ñaari responsabilité civile ak pénal civile mooy nit ki nga xam ne nii dafa ñëw déclaré doomam ci hôpital bi jëlee këyitam indi ko fay xaalisam nga enregistré ko ba mu correct doomam di ci jàng un bon mu xëy suba ñëw nga ne këyit bi xotti ko wala réer na kooku am na droit topp la ay ndàmpaay yu diis ay àq ci wàllu xaalis nga damp ko méttitu xol boobu ak këyit boobu nga yàq yow agent bi muy benn beneen responsabilité c'est purement pénal maanaam yoon ci boppam suñu code pénal réew dafa prévoir ay daan ci wàllu kaso ak alamaan yoo xam ne ni bépp agent wala officier boo xam ne yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi liggéey ci wàllu kayitu juddu da ci def ay njuuj ngaaj wala ay luubal wax naa ko léegi ci wàllu corruption lu ñu war a xeex la ci réew mi donc te bëri na ci état civil da ngay am sa numéro ñu ñëw neexal benn agent mu joxe numéro bi keneen wala mu blanco sa sa numéro jox ko keneen loolu yaakaar naa ak formation yi ma leen defal man ak procureur Diourbel bi wax leen responsabilité yi leen di xaar ak sanction yi yaakaar naa dinañ ci góorgóorlu te yaakaar naa at yi ci ginnaaw yàgg ngeen dëkk ay arrestation yu fa am ci état civil Mbacké ak biir Touba man mii maa def samay sama liggéey ak sama ay rapport ak procureur ñu leen di jàpp di leen téye di leen tëj demoon nañ sax ba ay étranger yoo xam ne juddoo wuñ ci réew mi juddoo wuñ Touba ñëw neexal xaalis ñu defal la fi këyitu juddu te kayitu juddu comme niñ ko waxee ku juddu moo ko moom ku juddu fii këyitu juddu mooy da ngay juddoo ci dëkk mais koo xam ne Guinée la juddoo wala feneen di étranger am na yeneen yoon yu ko loi Sénégal may bu fekkee bëgg naa nekk sénégalais mais amoo droit yow ne fii la juddoo te juddoowu maanaam du dëgg loolu nag article 130 ak yi ci topp yëpp ci code pénal daf ko punir ba toll ci ay cinq ans de prison ferme yooyu également déggoon ngeen ñu ci daanoon donc loolu ñu ngi koy bàyyi xel te ñoom it wax nañ leen ko ci formation yi yi ñu def ma nag procureur avant ñuy ubbi centre yi avant bis bii di am tey xam naa euh, question bi euh, c'est normal parce que on parle d'état civil tey Touba la ñu nekkee mais comme état civil la ñuy wax mu laaj loolu effectivement euh, Mbacké également amoon na problème yu mel noonu man bi ma ñëwee en 2019 fii comme président tribunal j'ai demandé à un archiviste de métier d'aller à Mbacké de me faire l'état des lieux maanaam mu xoolal ma lu fa xew lan la parce que boobu maa ngi dégg ay yàqu-yàqu defal na ma un document boo xam ne nii de 1964 à 2006 wax ma lu fa yàqu lu fa yàquwut lu fa des ci lañ sax dem ba gis année 2005 ak 2006 à Mbacké pratiquement registre amatu fa c'est c'est c'était inadmissible moo waral ngeen dégg léegi ma ma doon def annulation yi di defaraat ay naissance yu bees parce que bu fekkee destruction de registre dafa am maanaam registre yu yàqu toj amatul benn traçabilité ñaari solution rek moo mën a am soit on fait la reconstitution loolu gouverneur de région moom la yoon wax mu jël un arrêté nommé benn commission boo xam le préfet du département ak son adjoint ak euh, le maire de la commune bi registre yi yàqu ñoom ñett ñooy ñooy doon membre yi bu fekkee loolu amul benn solution bi mooy le président il reprend tout mooy day annulé waat acte yooyu comme amatuñ une base amatuñ ris amatoo foo xoole amatoo fooy vérifier ku moom ak ku moomul la on reprend on annule et on reprend donc l'acte de naissance te depuis deux ans yi pratiquement def nañ ba à quatre-vingts pour cent li fa yàqu woon lépp réglé nañ ko donc commission de reconstruction bi heure buy am ce qui est mooy li muy def reconstruction du bari donc loolu également euh, permettre na ma man également ma xaw a leeral tuuti loolu ndax amoon na tuuti ay débat ak i wax mais lii dëgg tey dëgg mooy agent yi nañu góorlu ñoom lañ dénk registre jàmbur yi kon bu tojee wala mu yàqu ñoom ñooy tooñ te wax naa ko léegi parent bi sañ na leen plainte sur le plan civil et pénal kon loolu na ko agent yi xam euh, loolu laa ne woon naa ko leeral ci euh, question yi